wajalilaayi maskani Tuubaa baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat rahmatullaahi wa barakaatuhu ci tur sunu kilifa sunu jëwriñ sëriñ Habibu moom Cheikh Mamadou Fadal sëriñ bi sëriñ Habibu ak waa Tuubaa ca kanam ngi lay nuyu te di la siyaare di jéggalu it kàddu yi ñuy yëkkati fi sa kanam ndax dëppoowut ak li nu jàngal waaye day ndigal rek lu nu suñta bañ a jëfe ginnaaw bu nu la siyaare di ñaan sun borom yàggal la fi lool suñ kanam te may la ak wér liggéey bi ngay liggéeyal sëñ Tuubaa ni nga ko bëggee yàlla na la suñ borom kàttanal ba nga defee ko noona ci bàkkib sëriñ bi li nga bëggul lu dul moom ci kaw suuf muy ngërëmu sëñ Tuubaa itam donte am nañ yaqin ci am nga ko waaye du doy ndax sëriñ bi bi muy dem ci géej gi wax na ne am na ngërëmu yàlla doog a dem te te daa mel ne booba lay doog a tàmbali kon yow itam gannaaw suñu borom daa yëmut fenn sëriñ Tuubaa yëmut fenn ci suñu borom yow it yàlla boo yem fenn sëriñ Tuubaa kon ñu ngi sant bu baax Mbàkke di wax ne mbooloom Tuubaa ci kanam ñii nag tey ci njiitu sëriñ Habibu li leen indi fi mooy siyaare si la yeesal si seenug laxasaay feddli si seenug jaayante seen diggante sëriñ Tuubaa te nga nekkal fi sëriñ bi te mbooloo mi ba mu sosoo booba ngay jëwuñu Cheikh Sidil Mokhtar ñu wax la ko nga yëkkati woon cay kàddu yu soññee waxoon ne am naa ci yaakaar te yaakaar jooju alhamdulilah baan suñu boobam dëggal na ko ba agsi fii waxoon ne itam lu yomb la lu gaaw la waaye nag daa laaj pësteef ak itte ci ñu koy taxaw soññee ci soññee yoo xam ne ñëpp gisoon nañ ko te doon ca dox mel ne it ñu ngi ci doon dox ba agsi fii ba tey jataay bi nga toog jataay bi sëriñ ba ñëwee da ngaa wax de maa ngi seddali sama laxasaay waaye nga wax ne yaakaar laaj amoon waaye am naa ci yaqiin loolu nag bu buñ ci amee dégg-dégg ñun ñu ne ci kanam mbooloo mi loolu war nañoo soññ war naa tax wawuñoo taxaw wawuñoo geesu wawuñoo yàlla moom suñu laxasaay te war noo am pas-pas ak yéeg-yéeg bu toll ne lépp loo xamante ne bëgg-bëggu sëriñ bi la ci dëkk bi ñu gëm ne nun moo ko wax def te loolu mooy suñu pas-pas mooy suñu yéene kon mbooloo mi na nga xam ne la leen taxoon a jug muy bëgg a liggéey sëñ Tuubaa ci dëkk bi daal loolu rek ca lañ ne ba tey ginnaaw dañoo liggéey ba am at jeex nag 2020 bi jeex na ñu dugg 2021 ñëw di yeesluwaat di la leeralal liggéey bi ñu liggéey it ci 2020 bi di di taatanaat itam di digluwaat ndigal di la wax it naalaat naalaat nañ fas yéene gën a feddaliwaat suñu laxasaay ci li li àggagutoon lépp ñu àggale ko yi nga xam ne itam fas nañ ko yéene sumb it ci at mi ñu sumb ko di ñaan nga defal nu ci ndimbal ci bàkki sëñ bi ba nuñ ko yéene defee ko ni Mbàkke noo ngi bu baax te fedd suñu jaayanteeg sëriñ bi di ñaan nga yàgg fi loolu te wér ci liggéey yi nga xam ne jotoon nañ koo def daaw ak daaw jéeg lu mel ne bâtiment université bi moom jàpp nañ ne eh, li ciy def dana noppi ren incha allah ba daanu jébbale caabi yi xayma nañ ne xëy na bu ñu ci defaatee ñaar téeméeri million ak juróom fukk dana mat lu jëm ci daaray alxuraan yi daaw jàppale woon nañ ci juróom benn fukk ak juróom-ñeent jàngalekat alxuraan yi tamit ab lim ci ñoom àndoon nañoo ñoom ci eh, dawra takwin ya boo xam ne dañ doon dollanteeg ñoom xam-xam ci wàllu yor daara ak taxaw ay donga lu jëm ci walu wér-gu-yaram mom nak jek no nga ci won bu bu faju kay bu lansar ba ñet ñet nopi won na ci benn ba mom tambali na dox bañ defon lansar yenen ñaar ya moy bu nek boobareel ak bi nek kergol yoy moy yi ñu war ubi ubbi fi mu ne nii am na yeneen ñett nag yoo xam mi ngi dana nopi ci at mi bu ci moy mooy ndam dalu abul alim khabir Touba Njaareem ak daalu xadim ñett yooyu moom daanaka legi ñu nopi fi ne ren ci jaayante bi nga xam ne amaloon nañ ko ci defar defarum yoon bi waaj màggal gi waaj a tàmbali jotoon nañ cee defar juróomi kilomètres yoo xam ne yooyu moom noppi na ba fi mu ne oto yaa ngi ciy daw euh, ci biir tali yi nag da cee am diggante yoo xam ne ak ci biir dëkk bi lu mel ne fii ci wetu tokkoor bi lu mel ne ca euh, wetu arrondissement lu mel ne ca yoonu Touba Njaareem wa jëm fa ñuy wax quartier Mbay Wadd ak Kër Baylaat yoonu njurul diggante yooyu day ay bëre bu ndox yuy taa yooyu nag lañ fay def moom béton lañ koy defaree du doon du doon tali yooyu lañ ci jot a defar toll na ci Euh, ñeenti téeméer rek ñeent ñaari junni ak euh, ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ci ay mètre carré yoo xam ne defar nañ ko ba noppi bu dee canal ak i tuyaux yi nga xam ne ci la ndoxum taw yi di jaare jot nañ cee defar lu toll ak ñetti junni ak juróom benn téeméer ak ñeent ci ay mètre ci ci diggante yooyu nga xam ne taataay ndox yi fi la fi la gënoon a fese lu mel ne euh, ci wetu arrondissement bu ndaam def nañ fa lu mel ne foos boo xam ne ñaari pompe yu mag lañ def ci biir ngir ndox yi bàyyi ko ci arrondissement ba di bàyyi ko buntu kër sëñ Touba romb gendarmerie bi ak li bàyyi ko Touba Njaareem ndox yooyu foofu lay daje pompe bi pomp ko nag dugal ko ci canal bi dend ak wetu kër sëñ Modou Kara ci wetu euh, rond point bi bu ko defee mu daal di dugg ci réseau bi daal di jàll foofu nag danañ fi jaaree gërëmaale waa ONAS ndax ñoom jàppale nañ ñu lool ci liggéey bi ci ñoom ñi nga xam ne ñoo yor réseau assainissement bi ba nga xam ne li Touba ca kanam di liggéey lépp bi mu ñëwee fa la koy fa la ko fa la ko def dem bërki démb seen directeur bi ñëw na fi wër na liggéey yëpp sant ci gërëm ci wane ni ànd gi nu ànd ak ñoom jaar na yoon te liggéey yi ñu def yu yu mat a rafetlu la. daaw ci euh, ci màggal gi jub si tamit am na luy tollu juróom fukki mbedd ak benn mbedd yu mag a mag ak yu yam ak yu sew yoo xam ne sëkk nañ ko maasale ko defar ko ba yoon wa bañ ba mën a jàppandi. loolu mooy li aju ci defarum yoon yi nga xam ne jot nañ ko liggéey daaw lu jëm ci wàllu leeral te mooy lamp yi ñuy jënd daaw indi na ñetti junniy lamp yoo xam ne euh, euh, installé nañ ko ci quartier yi wër dëkk yëpp ci biir ci biir corniche bi ak ci bitti corniche bi ren ji waajalaat nañ ci yeneen juróomi junni yoo xam ne fas yéene nañoo bala ñoo màggal bu ci yàlla àndee ñu indi ko installé ko lu jëm ci wàllu social bi nga xam ne moom la sëñ Murtala jiite daaw li ñuy dimbali ci ay nit jàppalante ak ñoom ñii ci ay ordonnance ñii ci ay dëkkuwaay yooyu matoon na ñeenti junni nit ak ñeenti téeméer lampi corniche ba tamit poto yi nañ ko ba defar nañ ko bitim réew ba ma nga ma nga ma nga ci yoon wi ñëw câble yi ñu war jënd Euh, am na ñoo koy gëstu fi mu ne bu ñu noppee dañ koy jox Senelec bu ñu ko validé ñu jënd câble yi daal jublu ci liggéey bi ndax jëmmi lamp yi moom mi ngi fi woon ba noppi assainissement bi ñu war a def biir kër Sëñ Touba tamit moom it euh, euh, ingénieur yaa ngi koy gëstu yi ko war a defar lépp noppi ne dañuy xaar gëstu bi noppi rek ñu daat koy sangu moom it daat koy yóbbaale lu jëm ci wàllu ndox mi daaw ci ja waxtu wii rek daa tolloog forage yu bari paanoon ci dëkk bi tombeek tamit ci jamonoy mbas mi couvre amoon ba nga xam ne roti guddi du woon yomb pompe ya paanoon yëpp Touba ca kanam jëndoon na ko ca jamono jooja quartier yu baree bari tamit xëcc nañ ndox yóbbu fa lii ci tënk mooy li nga xam ne mooy mooy mooy lenn ci liggéeyu liggéeyu liggéeyu daaw bi. ñu leen di sant leen gërëm bu baax a baax a baax taxaw bi ak doxin ci njëlbéen nga waxoon naa leen ab gàllankoor amut ngeen àgg ci dëkk bi lépp mën ngeen ko yor moo doon sama xalaat moom laa gisoon te ak ngeen foo xam ne benn rek ngeen ja ngeen jéggi dem du leen du leen taxaw. Pastef bi leen taxoon a jóg bu ca dara soppiku Pastef nanguwul yox yox yi bu ca dara soppiku déedéet yow yow laay waxal ndax ñoom ñoom ñëpp dañu xool seen tey déglu yow kon na nga xam ne yow alhamdulilahi rabbil alamin jiitu gi xel dal na ci ànd si rawatina kilifa day seet boppam ci biir mbooloo mi loo xam ne mënu ko mënalu ko mbooloo mënu mënu ko ci biir mbooloo mi ci wàllu xelam ci wàllu jikkoom mu yaakaar ne loolu moom am na ci ngant il faut que mu am kooku mën a lool ku ko féete ca lool Abdou Lahad mi mën na loolu góorgóorlu leen rek bu ngeen góorgóorlu góorgóorlu ci waxtu bii moom dem rek te yaakaar naa ne li ngeen weesoo gis ngeen ni mu demee fa tabarakallahu lu bett ñëpp la lu koy njort la lépp di di di sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa dëggu dëggu ci yéen sëñ Tuubaa nekk ci yéen ngeen ngeen ngeen jóg ngir sëñ Tuubaa loolu li ñu weesu lépp leer na taalib yëpp nangu nañ ko xam ñëpp xam nañ ko man nag man ci njaal bi waxoon naa leen ko man léegi ànd ak yéen man damay dama dama damay maag maag dama damay wut fukki murid sadex yu yu ko yéene te mënuñu ko ma ma joxeel leen muy muy muy fukk maag maag ñoom bi nga xamee ne yàlla dogal na liggéey bii dama war dama war sama yëpp sama lépp dama ko sama léppi sama léppi sëriñ bi dama ko war a yokk jëm ca kaw loolu moo tax ma ne leen kon def naa ko téeméer waaw dama def naa ko téeméer juróom-ñeent fukki murid saade ak juróom-ñeent ma fukkeel leen mu ngi nii teg maa ngi noy rek maa ngi noyu rek te yaakaar naa ne maa ngi ñaan am ñu ma ca wutu <laughs> kon sa yaay bi mu ngook mu ngoog bu ngoog noonu dong la demee ba bokki taalibe yi yëpp dégg yi yi bokk yi bokk ci liggéey bi ak yi ci bokkul na ko ñëpp dégg waaw ne ko ñëpp dégg waaw noonu dong la demee kon noonu rek la demee waaw eh, xanaa ñaan nag ci baaxu sëñ Tuubaa san borom gën gën leen a gar nag tawfeex sëñ Tuubaa rek ndax tawfeex lépp lépp lépp lépp tawfeex sëñ Tuubaa la waaye nag mu ñu gën leen ko ñu ñu ñu gën a yokk waaw ñu gën a yokk te eh, eh, tawfeex sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ci yéen ba ngeen mën a dem ni ngeen ko bëggee sëñ Tuubaa gàttanu leen ngërëmam waaw ngeen dem na ngeen ko bëggee sëñ Tuubaa gàttanu leen ngërëmam kenn ku ne xam nga fa nga toll ci lu baax waaye fa nga toll ci lu baax nag loo ca weesu rek geesul rek weesu xeeb ko mel ni ku doon jugaat ki nga tàmbali loo ca weesu rek xeeb ko ci li nga jëm waaw ah, yàlla yàlla yombul yàlla yombul yàlla <laughs> bi moom mooy kenn ku ne boo buñu jaagee nga def la nga man rek la nga la nga mën sa kem sa kem kattan bu pëstee waaw it jëmat sëkk loo ca man loo ca man rek ca ca ca nga xam ne yaa ngi koy def te xam na nga dimbalee nga bëgg a dimbale miskin yi néeg ju doole yi ndax moo kon mooy social bi kon nag loolu moom ñi ñëpp dégg lu ca waay man euh, na koy def bu mu xeeb bu mu yéem waaw bu mu bu mu yéem waaw mana mana mana mas naa bis moo fii ne la ay silmaxa lañ silmaxa nag bu nekkee ci am néeg edam eh, nekk ci nii ba saafara nekk parce que nekk ci xamewu ko kuñ dimbali wu daal yàlla dimbali ngi Sëriñ Tuubaa rek waaw liggéey bi ko si eh, waaw waaw dëggal Mbàkke waaw waaw bu ñu yëgee bu ñu yëgul moo gindi eh, loolu bu ci tiit dara sëñ moo ñuy gindi waaw tawfeex sëñ mooy gindi sëñ sëñ bi tawfeexi boromam la way jiri fi nekkoon ku neen ko topp ba ba ngërëm la sa mag gi fi na ñoom gën la ba ngërëm la lii rek kenn kenn neexlu ci kenn ñëpp dañaa war toog bi ñu ay gor fas ñuy jox suñu bopp suñu lépp ngir suñu Tuubaa duñu la war mukk ci àdduna Mbàkke duñu la fa sa bopp bàyyi leen suñu bopp sa bopp ñaan nañu bu ñu seytaan am yoon noppi naa ku dem ma dem ku demul ma dem loolu laa bëgg de jàmm bu ne sañ naa wax lu mu bëgg xaw ma ci sama bopp dara mënul lu sama bopp dara doonu ma ci sama bopp dara waaye nag li ma bëgg moom moom ak toll li ma bëgg rek moom ko dem ma dem ko dem ma dem ah kay dañuy ànd kon dañuy ànd. <laughs> wajalilaayi maskani tuuba misras mi abijaayi xayri ma nabaat